ndimbal ñeel ñenn ci askanu Touba jëm ci tamxarit bi honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga delloo buum ca boy boy ba. ñun social bi daf ñu intéressé ndax loolu ñu ngi koy jëlee ci président de la république ak premier dame bi nga xam ne social rek moo ko tax a jóg ñu gis ne ñun lu baax mënut ñàkk ñu am fu ñu koy jëlee di ci ba xel li wax foo la fi wax ne feccum liir bu neexee yaa jaa jàpp ca mbagg ya moo tax ñu ngi leen di sant bu baax moo tax ñun it chaque jamono dañuy jëm fexe ba nit ñi ñu jàppale leen ci lu mel ni du fii rek lañ ko defee yaakaar naa gis nga fi ñu jaar fépp noonu la demee mais loolu rek lañ ci jublu pour jàppale nit ñi ba nga xam ne ñi néew doole mën ko jot ñu ko soxla euh, gis nañ ne Touba xëy na nit ñi dañoo jàpp ne ay ñu ko soxla du fi am mais ñi koy soxla ñoo fi am loolu it am naa fayda nag yi ñu rey man ci laay bokk yi nga xam ne ci lay ci lay ci laay tam xarit kon ñoo koy bokk daal. loolu li ma ci jublu rek ñu ñëpp ñu bokk ko bokk ko jëfandikoo kon nag euh, loolu ñu ngi ñaan yàgg ko yàgg leen fa fekk loolu nag du politique jotee ak politique dara parce que ñun suñu gëm-gëm mooy bu politique jotee nañ dem politique yi mais bu buñ paree nag bu nga xamee ne nit ñi jamono yi ñu soxla nañ dem fekk si leen ci lañ soxla loolu mooy suñu gëm-gëm. sëriñ Mbàkke loo bokk ci ñi nga xam ne ñoo dëkk ci Touba jot ci ndimbal li di wax ne ñoom daal dañu gis ne yenn ci homme politique yi yenn saay dañ leen di fàtte bu fekkee jubunu élection. Ah, di sant euh, Abdoulaye Seck Sadaga honorable député ah, ci social bi nga xamante ni ah, année bu jot mu def ko euh, ngir jàppale waa Touba daaw ci heure bii wala lu ko jiitu defoon na ko euh, ginnaaw bi mu ko defee tamit diggante bi jàppale na waa koñ bi baax a baax ci wàllu ndox. kenn ku ne xam na ne koñ bii ko xam Darou Nahim 2 xamoon ko ci jafe-jafe ndox mais ginnaaw yàlla ak moom mi ci nañ tàqalikoo ak jafe-jafe euh, social bi tamit musul dox di ko dakkal ba tey jii ci bisu tamxarit yi nga xamante ni bisu dimbalante la bisu baalonte àq la mu xalaat jël ci dooleem euh, dimbali waa Darou Nahim 2 ñu ngi ko ciy sant di ko ci gërëm bu baax a baax a baax. loolu day wane ne li muy jëf ngistal amu ci xam nga euh, sama mbokki politiciens yi li ñu gënoon a baaxoo di defee mooy jamono élection ba élection nga leen daan dégg. des fois sax bo len wowe euh, kenn ku ñi may dégg dañ xam bu baaxa baax li may li may wax kenn ku ne xam na euh responsable politique bu mag ci jamono élection nga lañ jotee bu jotee mu mu changer sax numéro mais honorable député may ko xam te ni musul numéro heure boko wowe goudi guddi ak soxla so am ma nga ma nga ca taxaw kon day wone ne moom li def yalla ak yonent bi serigne touba mi nga xamante ni mooy euh, moom la yakkar tay ak ëllëg moo tax mu diko def li ñeel coow li nga xam ne judd na ci ki war a doon président Macky Sall ki nga xam ne mooy honorable député di wax ne loolee daal coow lu ñaaw la ndaxte yiwul yellul. xam nga loolu euh, damay wax ne kersa la lu tax mu doon kersa mu ñëw fal président de la république lu matagul un ay nit jóg di xalaat pour wuutu ko ba noppi nag bokk ci biir parti wala bokk ci biir coalition loolu kersa la ak yëpp sénégalais yi ñu koy def war nañoo arrêté li ñuy def. te xam ne li ñu def tout Sénégalais yi soxla li ñu war a def kay mooy góor lu jàppale président de la République ba mandaam bi lim ci bëgg mu man ko am Sénégalais yi bëgg ko ci moom. parce que suñu xalaat suñu gëm-gëm mooy fexe ba président Macky Sall bu fiy jógee bu demee bu ëllëgee ku fi ñëw da ngay am jafe-jafe sax uutu ko ci lim doon def. parce que ak njàmbaaram ak taxawaayu Sénégal parce que bëgg Sénégal kenn nattable ko taxawu Sénégal kenn nattable ko bëgg Sénégal naat kenn nattable ko kon nag loolu mooy suñu war gar ñun ñëpp ñu jàppale ko taxawu ci peggam kon ciy tudd ñu ngi leen di ñaan ñu daltu ginnaaw te bañ cee feeñate sax ci yooyu ak ku mën di doon parce que loolu du waru gar tey du ngor parce que teel na ndax président actuellement nii dañ koy doog a fal amagul at mu mat kon nag loolu warul ñooñu moom wax dëgg yàlla d'accord tey nag euh, maa ngi wax ne loolu lu lu lu signal la boo xam ne xëy na ñu bari dañ koy doog a seetlu mais man yàgg naa koo wax ndax comme ku mel ne man nga xam ne fu ma toog dama naan man Macky Sall la bari na ay ministre wala ay directeur yoo xam ne amuñu soxla ci man bu ñu ñëw tuubaa gii ma dëkk ñeneen waa PD sax lañuy wuti xarit ci man parce que lu tax mooy nee nañ man Macky laa jotaay bi amee woon diggante bàq yaa gédee wàllam ci nag wi Ousmane Sonko jël ci ba mu doy sëkk. kooku nga xam ne moo wax loolu gëm naa ne du jullit ci yaari mbir bi ci njëkk mooy ab julit du kàcc ab jullit du kàcc te day kàcc yi bari na. bu wax naa fi yu bari yu mu beneen bi ci topp mooy barki démb nee na moom du dem màkka lu tax du dem màkka mooy ku ko joxoon milliard du dem màkk ab jullit du ne du dem màkk ku ma joxoon milliard du dem màkk ab jullit du ne waa màkk ay naa naafeq le ab jullit du ko wax te loolu moo ko wax kon gëm naa ne dub jullit te na ma wax lu tax muy jullit